di leen bu baax baax ci télévision Future euh, Média, xibaaru euh, goudi ñu tambaliko ak lu ñeel euh, mirum contrôle ci walum dossier parrainage yi mbokk yi ne lu mirum élection présidentielle bu 25 février danaka légui nit ci candidat candidats yi nañu rek daldi di sen ay contrôle xam nañu ko tirage au sort bi tey jii ci suba lañu ko doon amal ci conseil constitutionnel ci téwayu mandataire candidat yi bu nekké am na ñi nga xamanteni kon rafelu dañ am ñeneen ñu jàpp ne njàkkare lañ ci rek euh, daal di gis mu nekk euh, reportage yu Alassane Ba ak Alioune Diagne. ngir lépp leer ci li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum li ñuy def huissier de justice bi dafa yëngal yëf yi yëngalaat ko ci kanamu mandataire yi. donc ça a été fait dans tous les sens c'est bon. bi yëf yi noppee ñu daal jàll ci tirage au sort bi bi njëkk bi ñu génnee mooy bu Boubacar Camara. coalition ou parti ou entité parti de la construction et de la solidarité pts jëmbu tabax. ab exercice bi nga xamante ni am na ñi ci bëgg waaye itam am na ñi nga xamante ni bëgguñ ci. soxna Rose Wardini euh, nga xam ne moom mooy présidente Sénégal nouveau tey mooy première dame bi nga xam ne nii moom la ñuy moom la ñuy tudd turam ah ci tirage au sort bi loolu yëpp mandarga la loo xam ne nii doy na euh, suñu yaakaar gën naa doon lekk. Euh, tirage bi joxoon na boppam selon ñi pare ñun pare woon nañ bu yàgg ba déposé nekkoon cinquième mais je pense que l'ordre des dépôts mënoon na suivre tout simplement à la place de l'ordre du tirage. Mais comme tirage ñëw na ñu sant si yàlla parce que nous sommes 22e sur 93. tirage bi xam nga ñi nga xam ne ñooy ñooy njëkk a jàll ils ont beaucoup plus de chances d'avoir moins de doublons donc ñi nek ci ginnaaw boo moytuwul vraiment dina gëna metti ci ñom. ginnaaw bi nga xamanteni ni rafetlu na li mu jàppee avancer le mandataire bu Khalifa Sall gis né ba légui doyut war nañ def ay jéego jëm ci yëf yi. mun nga am tay un excellent candidat mais ñoo def tirage au sort mu génn ci ñu mujj euh, du doon na ci candidat est-ce que jaadu na tey euh, ñu mëna jël ben candidat éliminé ko parce que Moussa Tine jox na signature am ñaari candidat yu bokkul. maître Ciré Clédor Ly moo fi teewal candidat bi di Ousmane Sonko moom Ousmane Sonko moo nekk ci ñeenteelu position bi avocat bi di dalal xelu ñooñu maire bu Ziguinchor mu jàpp ni dossier bi mu déposé mat na. dossier bi nag lépp loo xam ne que yoon wax na ne ko dañ ko ci war a def motal nañ ko joxe nañ ko. ci juróom-ñeent fukk ak ñetti candidat yi nga xamante ni jot nañ déposé seen dossier de candidature yi juróom. ñoo ci tànn wàllum parrainage des élus te Benno Bokk Yaakaar képp moo ci déposé parrainage élu locaux yi. comme sooroon nañ situation bi nga xam ne tirage au sort bi mën na la gàllankoor ñun boo xoolee ñun rek ñoo fi déposé parrainage des élus donc ñun cas boobu suñu position du indi benn problème. ndortelu contrôle dossier de parrainage yi ñu ngi ko jàpp ci samedi gi bu weesoo. parrainage bi nga xamante ni daañ ko saytu commission bi dana sëgg itam ci yeneen pièces yu nekk ci dossier bu candidat bu ne Alassane Badi le la gërëm bu euh, baax baax contrôle parrainage nak japp nañ ko suba ci euh, samedi ji bu 9h ci suba euh, kon jotee ba simili calendrier bi nga xamanteni mom moy rek dadi wax kan kan ak ban waxtu lay rek dadi jall candidat yi nak jox nañ len ko kon président bu commission bi nek itamit président conseil constitutionnel di Mamadou Badio Camara mon correct rek daal xamlé né ne itamit dan rek kon jox daan rek wax itamit ne lépp lu jëm ci walu caytu bi dañ koy def kon ci teewaayu représentant candidat bi nga xamante mom moom rek daal di euh, contrôler ñu déglu ko ci micro Alassane Ba ak Aliou Diagne. donc vous avez pu suivre en temps réel le tirage au sort et le calendrier de contrôle. comme ni ngeen ko euh, gisee ñu amal lii di tirage au sort waaye calendrier bi nga xam ni itam moo tegu ci loolee ci yoon nag ñu war amal contrôle yi door ci samedi bi ci suba bu 9h30 jotee waaye xam ngeen ni dina jafe lool ñu joxe heure précise euh, représentant bu nekk mbala mandataire bu nekk moo tax dossier yëpp dinañ ko euh, saytu li ko dalee ci suba si bu 9h30 jotee kon représentant ak mandataire u candidat yi ñu convoqué leen ci benn heure contrôle ñu war ko door ci suba si bu 9h30 jotee ñëpp war fee teew lu jëm ci candidat yi nga xam ni war leen contrer ci ngoon si kon ñoom ñëpp dañ leen convoqué ci benn waxtu muy bu 14h30 jotee dossier yi huit ñu war ko kon euh, traité euh, ci ordre ba nga xam ne ni moo tegu euh, ci tirage au sort bi ngeen xam it ne lu jëm ci contrôle gogé war nañu ko def ci teewaayu représentant candidat bu nekk boo xam ni contrôlé nañ ko. traité dans l'ordre du tirage au sort et l'appel sera fait au fur et à mesure, puisque chaque contrôle doit se faire en présence du représentant du candidat contrôlé ñu desandi ba léegi ci mbirum élection présidentielle bi jàpp leen ne Abdoulaye Tine nekk euh, candidat bu US USL euh, moom dafa daal di ajandi bokkam ci processus électoral bi euh, la ko waral mooy dafa déposer recours au conseil constitutionnel parce que dafa jàpp ne processus processus électoral bi nañu ko defee kon dafa teguwut ci yoon te loolee nag CEDEAO moo wax depuis ñaar fukki fan ak avril 2021 kon nag nee na loolu tey rek daal di wane ne lu jëm ci wàllum kon processus électoral bi euh, jaarut euh, ci yoon mu yokk ci it ne lu jëm ci compétition bu ñu rekk daal di amal ci wàllum tirage au sort ak yi ni mel nee na dafay mel ni mbirum euh, loterie la moom Abdoulaye Tine moo ko rek daal di xamle ne nag loolu dafay rek daal di kon nasaxal lépp luy kon liggéey bu am solo bi nga xamante ne candidat yi def nañu ko ci weneen wàll nag mu ne candidat yi dañoo war a jot li nga xamante ni moom mooy fichier électoral bi Euh, euh, yi ni mel moom kon euh, wax naa ko candidat bu USL mom nak nee déposé na recours ca conseil constitutionnel ngir sakku ñu daldi di lu jëm ci processus électoral bi mu japp né dafa teguwut ci yoon na ñu wax leneen ak euh, BRT bi nga xamante ni dafa nekk lu am solo euh, ci wàllum dem ak euh, dikk gi waaye rawatina nag lu jëm nag ci wàllum aar gàncax ndaxte bu ñu jàppee li nga xamante ni waa BRT ñoom fësal nañu ko maanaam fi nga xamante ni foofu la BRT bi di jàll dañuy def seen kéemtalaay kàttan ba mën fa def kon la ñuy duppee ay espace vert ngir gën a mën a rek ñoŋal lu jëm ci wàllum gàncax ak li te def BRT ci réew mi wala sax ci dëkk yi dina tax nag lu jëm ci euh, wàllum euh, yëg-yëg beek euh, li baax yi am ci koñ yi ñu gën ko mën a gis ci loolu nag ñu déglu Aminata Sow Ba moom nag moo toppatoo lépp lu jëm ci wàllum aménagement wu beerte bi ñu déglu ko ci micro Amadou Ba ak Aminata Marie Sow xoolee ci environnement garab dafa am solo léegi perspective yi mooy ñu rafetal BRT bi pour ku ci dugg parce que BRT bi mënul dem sans aménagement paysager su ngeen ko gisee garab yi rafet na ay couleur am na ay lépp ba pare sóoru nañ ci aussi euh, euh, écologie bi ak euh, développement durable bi loolu aussi c'est très important ci ci ci BRT bi. palmier yi Petersen rek la yemoon ak Colobane mais léegi gis nañ ko waa Guédiawaye ñoom ñëpp def nañu pétition ak waa Parcelles ñoom ñëpp. Euh, donc tout le long du tronçon du BRT nous avons dañ fa palmiers des fa ay garab rafetal ko nous rafet nous liñ parce que nous ko yaké suñu nous, lañu yakal donc euh, nous, nous population rek nous, ñu nous ci li euh, palmiers ñu wax léegi ci Cheikh Anta Diop euh, tey jii nag lañ doon magal téméri at euh, kon bu Cheikh Anta Diop euh, tey jii ñaar fukki fan ak juróom ci décembre Cheikh Anta Diop nag ñu daldi koy rek amalab sargal bu am solo ci kon kër gi nga xamanteni mom mo nekkon kon kër bu fonction am tey jii nag dañ ko daldi transformer def ko ci ben musée ñu ko kër Cheikh Anta Diop la tax nak ñu def ko moy gëna gëna rek ñongal kon gis-gis ak liggéeyu Cheikh eh, Anta Diop mu nekkoon nag ci teewaayu jëriñ ju njëkk ji di eh, amadu Ba eh, jàppaleen ne lu jëm sax ci wàll woowu nguur gi dugal na fa lu toll kon ci fukki million ci francs fa reportage u Habib Faye ak Pape Sangone Mbaye

si des beaucoup bu ko envoyé nak de nitine yi protéger parce que dañuy daw dañuy wante garab euh, euh, euh, parce que de fay moun envoyer quantité strictement nécessaire pour éviter que moustiques yi xamé garab bi pour moytu garab bi bi donc biñ ko biñ ko biñ ko créé ni euh, borom xam ñi xam seen xam-xam màcc ci pharmacie ni mu xarañee fii ci Sénégal. Diko ah, kon ah, jaajëf bu baax baax docteur Doudou Tamba Diko féliciter félicité ah, ci li nga xamanteni kon kon def na lu jëm nak ci ak mouvement foot en marche nak di sargal bu baax a baax yenn ci kon doléance yenn ci askan yu nek fofé Podor Danarek na rek mobiliser lu toll kon ci juróomi téméri ndaw ngir ñu ay formation ak yini mel nak ci ay kon domaine yu bare bare lolé nak dina tax ndaw yoyu di ci marché bi waaye tamit am diplôme laata loolu ñu euh, déglu kon ndaw yooyu ci micro Abdoulaye Anne. ñun boulanger dañ ni si ngeen FNBS ak RBS nee nañ mënuñoo continuer di bàyyi boulanger yi di tëj suñu responsabilité mooy boulanger yi nga xam ne ñu ngi tëj faw ñu wallu leen wàllu bi nag mooy dañoo jàpp ni dañoo xool ni état bi faalewul boulanger yi. actuellement nii parce que bobu léegi fu woote wootewul ñu gis nañ nak ñun conscient nañ ni ah askan bi sonn nañu waaye teguñu leen ko du ñun ñu ni nak léegi nak ñun xam nañ pleinement conscient xam nañ ni ministère des finances bi su ko neexon ci une semaine mu régler suñu jafe-jafe yëpp ci TVA courant bi ci TVA wu farinu euh, local yeeg yooyu yëpp mais defuko ko nak ñu japp ni état bi mënul régler problème boulanger Sénégal ñuy araftu nag di arte que ni loolu sagam moo fi nekk sagam ñoom loolu lañ gëm fekk change wuñu nag position du changer position dañoo décider nii balaa la 15 janvier bii danañ tëj suñuy fuur yi def ko 48 heures du doon nag 48 heures ay renouvelable renouvelable la maanaam répétitif si weeru janvier bi ak si weeru février bi Amadou Gueye di ko bu baax a baax moom moo kon euh, fédération bi ëmb boulanger yi nek fi ci euh, suñu réew dem lañu ñibisi ñom missionnaire yu ñu yóbbu woon foofee euh, Guinée gannaaw explosion ba amone fofu dimanche fukki fan ak juroom ñaar ak altiné fukki fan ak juroom ñett ca wéru décembre kon fofé ca Guinée équipe bu Sénégal nak lu tollu ci ñaar fukku ak ñetti nit ñoo ca nekkon bokku na ci ay sapeurs pompiers ak ay agents de santé ñom nak lañuy ñaawlu nak mom mooy mooy euh, bilang bi ñaar fukki nit ak euh, ñeent ñoom ñoo ca rek daal di faatu lu toll kon ci ñaari téeméeri nit am ci ay euh, gaañu gaañu Abdoulaye Diop. ñëpp delluwaat nañ ci Sénégal te dara jotu leen ginnaaw ba benn explosion amoon ca Guinée ci benn entrepôt bi nga xam ne moom lañ doon denc carburant nga xam ni Guinée moom rek la am Sénégal yónni woon na lu mat fukk ak juróom ñi xam ni ñooy yëngu ci wàllu wér-gu-yaram soldat yi ak juróom-ñett ñi nga xam ni ñoom ay sapeur pompier lañ. ensuite aussi symbole la parce que ñëpp xam nañu suñu relation ñu nag euh, waa Guinée. Euh, lu bëri moo ñu lié notamment géographie bi notamment culture bi donc benn lañ en quelque sort lii nag nekk lu yombul woon. ndax ñaari jafé jafé yi jakarlo ak ñom quand même yu ñu relevé moy défi organisationnel bi nan lañuy def avec peu de moyens euh, et le plus efficacement possible fay lak bi ak ensuite défi logistique bu xaaw euh, taku donc nan lañuy organiser stratégie lañuy tek ak le peu de moyens bu am pour mën quand même vaincre l'incendie au bout de 6 jours quand même xam ko pour ce type d'incendie très complexe très compliqué réussir nañ ko et surtout le plus important demon nañu à 23 dellu nañu à 23. jéey ji nga xamni ne nag ñi ci am ay gañu gañu ëpp na ñaar téeméeri nit ba tax ñu yëngu ci walu wér-gu-yaram bëri woon liggéey lool. def nañu ay intervention chirurgicaux yu bëri def nañu ay pansement prise en charge yu yu brûlé yi aussi def nañu ko et vraiment. Euh, li nek ci urgence et tout vraiment équipe bi euh, euh, ki na voilà liggéey na ci quoi. bu ñu sukkandikoo ci journal bi di Jeune Afrique fukk junni nit ku nek am na ci gañu gañu wala yàqu-yàqu ci explosion bi nga xamni mi ngi am ci guddik 17 jëm 18 décembre ci at mi li ci gañu nak mat na ñaar fukk ak ñent Abdoulaye Diop euh, di la gërëm bu euh, baax baax Sam euh, danañ ko amal ñaar fukki fan ci wéru janvier bi ñu deukmal ci juddu Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké événement bobu nak ña ngi wajal waajal bu am solo motax ñu daal amal ap kon comité de départemental donc de développement bi nga xamanteni dañ ko jagleel kon xew-xew gu mag gogu ci walum diiné ngir waccayek mel donc kilifa ya nek fofilé kon muy préfet wu Tivaouane

yeggali nu ca ba nga xam ne liñ ci seenu lépp ñu mën koo am waaye lépp lu ko dale ci wàllu wér yaram da wàllu hygiène wàllu sécurité wàllu ndox mu doy wàllu euh, réseau bu baax ak Senelec ndax fépp fu mbooloo mi dajee ni xam ngeen ne Daaru Saam ni mu demee fépp fu mbooloo mi dajee loolu dafay am solo am na doléance bu am solo nag muy yoon wi moom chaque fois danañ koy rappelé waat ndax nit ñi bëgg na noo ñëw waye dañuy am ay difficulté lol ci digënté bi ni euh, jaadé Toubé ba ba ñëw daru Sam té gis ngeen service yi niñ waxé amul kenn ko ko wuté wala ku ak sa morom ci euh, taxaway ak yéné ak pas pass té lolou gis ngeen ko ci walu wér yaram bi walu santé gis ngeen ko gis ngeen ko ci walu kaaraange gi sécurité ak service yi nga xamné yépp euh, ñoko ngank ci walu set ak ketal ci wàllu courant bi ci wàllu ndox mi ci wàllu yoon yi

ñi bokku ci équipe réalisation film bi ñu duppee dent pour dans. moy xalaatu Otis Mamadouba, Ba ñëwaat ci leen lu gëna fess ci société bu Sénégal sukkandiku ci li mel ngir fësal leen lo xamante setlu fi ci réew di Sénégal. En tout cas, je ferai pas le ménage. Alors, c'est un film euh, qui parle de la société sénégalaise. film bi de wax société sénégalaise Burina na ay qui qui ci euh, personnage principal bi euh, li nga xamantene moy ajustement structurel yi fa amoon ci ay jamono mo dal ci kawam ci loolee la ñak liggéeyam jamono jooju nak muy góorgóorlu di xol yoon bi muy aw ngir mëna dundal famiyam euh, lolu nim ko doon dundé ñak liggéey ci ku tamone di fajj soxlam ci ay anam yu mucc ayib. et il le vit et le vitre très mal. maa ngi Aminata. maa ngi Aminata ci bi film bi di doomu Augustin. Augustin Augustin moi, acteur principal bi nga xamné moy jankonté problème de liggéey waaw moom ak sama yaay ñoy sama parents donc euh, mo jugee Burkina ñëw Sénégal euh, di def tout pour être père de famille bu noble responsable mais mu ngi un ay problème dal ci ay problème de ci lii la mu lëkkaloo ak ay kàngam ci wàllu cinéma bokk na ci comédien bi di Charles Auguste Coutou ak itam actrice bi di Oumou Kaltoum Ndiaye ñoom ñu bokk ci li nga xamante ne ñoo yoroon histoire bi ngir may ki le réalisateur mu fësal xalaat yi mu amoon. film bi mu ko gisee je pense que Otis Ba. réussir pour suivre ay rêve pour mën ko takk pour mën a subvenir si ay besoins moyens mu ngi def tout pour bëgg ko expliquer ni ko mën nga tok fi tek ci dëkk bi tok fi tek fi mën na nekk. il y a il y a des thèmes plus profonds. Euh, notamment euh, la femme. am nay thématique yo xamantene jot nañ ko fi développer bok na ci mbiru soxna yi nga xamantene chaque fois dañu yewu rek di gorgorlu ngir am ci lu ñu ay entrepreneurs yu takku lañ. muy lo xamantene dafa bok ci li gëna fess fi ci Sénégal ay soxna yu gorgorlu Euh, Otis Mamadou Ba amal bi li liggéey duppe ko dent pour dent mu ne nag lum ci jublu mooy fexe rek yëkkati kàddu gi mu ne nag du ay leçon lay joxe waaye dafa bëgg rek ñu waxtaane lépp bu ko defee solution mën ci bàyyee ko Ibou Diouf diko ko jaajëfal bu euh, baax a baax moom ak Lamine Diagne ñu andon ci euh, bile euh, reportage ñu waxtaanee lég lu jëm ci walum football ak sélectionneur national bi di Aliou Cissé mi daldi di kon liste ñaar fukk ak juróom-ñaari joueurs yi nga xamante nañu bok ci kan bi ñu nar a jongante foofee ca Abidjan ñukoy koy tàmbali fukki fan ak ñett ci wéru janvier jàpp leen na liste bi amul ay surprise yu bëri lu jëm nak ci wàllu woowu Pape Gueye ak Abdallah Sima kon ñoo dellu suwat ci euh, tanière bi euh, jàngatu Mamadou Ndiaye. Coupe d'Afrique gu Sénégal daanaka tàmbali na tey jii ci suba si la Aliou Cissé fësal ñaar fukki gaynde ak juróom-ñaar yu fas yéene bokk ci Coupe d'Afrique bi am fële ca Côte d'Ivoire sélectionneur bi di miser ci continuité ñu seetlu ci benn joueur bu yees rek muy Abdallah Sima keneen koo xamante ne daanaka dafa ñëw rejoindre tanière bi muy Pape Gueye Aliou di ci yëy yàb bi ci ni mu def ba tànn. ñëpp d'accord nañ ni que suñu équipe bi. équipe boo xam ne day dugal ay mais xam a ne équipe boo xam défensivement équipe bu solide je crois que tey doute bii nga xam ne nit ñi ñu koy am si suñu équipe bi du doute boo xam bu normal parce que mënoo nekk pratiquement plus de 5 ans 6 ans numéro 1 sur le continent africain gagné coupe d'Afrique demaat coupe du monde demaat coupe du monde ba tey ñuy continuer encore di douter ci ñun. lu lu gën importance que ñuy wax ci ci collectif bi même bu dee sax effectivement collectif boo gis individualité yi ñooy def ñoy def différence yi mais man bo leen ma déggee bu ma bu ma ba légui sama sama waru warugar sama devoir sama sama sama sama objectif moy que justement individualité yoyu mën a collectif bo xamné collectif bu fort la Lamine bokk na ci xalé yo xamné ne xam nañu xel ni que mëna amna place am ci équipe bi kon nak comme luma ko waxé bu fi nekkee du hasard du cadeau bu fi nekkee c'est parce que tout simplement dafa war a pare saa soo xam ne équipe bi soxla nako ça so xamné entraîneur yi soxla nañ ko rek mu def kéem kattan yemu ci sélectionneur bi ñëwaat na ci joueurs yi nga xamante ni woo nañ leen te fi mu ne nii ñi ngi ci ay jafe-jafe am ay gaañu gaañu mi ngi dalal xel yi. Boulaye ñëpp gis nañ ni que dafa dafa dafa gaañu mais comme lu ma ko waxee rek am na benn confiance boo xam ne moo nekk sama diggante ak sama joueurs yi. confiance bobu taxna je pense que c'est des garçons qui xamné respecté nañu suñu bi équipe nationale à tel point que buñ ko mënul apporter 100 nous la seen ñomay wo coach paré wuñu pour dem waxtaan bu ma am ak Boulaye waxtaan bu leer la ci rek ko jot na que effectivement gaañu gaañu bobu nga xamné mom en tout cas suñu premier match bi war na équipe nationale bu Sénégal fas tambalé regroupement le 1er janvier Sénégal ci bopom dina amal match amical le 8 janvier digentem ak Niger ci bu 18h jotee fi ci Ndakaaru gannaaw ba gaynde yi le 9 daal di départ wouteli feulé ci Côte d'Ivoire fiñu ñu dem défendre son titre Sénégal nak bokk ci groupe C bi bokk kok ñi di Cameroun Gambie ak ñi di wa Guinée dila la bu baax a baax euh, Mamadou Ndiaye fi lañuy ndax cap xibaaru euh, guddi gi di bu baax baax ci li ngeen ak sen télévision Future Media. jaajëfal équipe bi nekkoon euh, ci ginnaaw tobb togg xibaari bañu mën ko rek daal di 20h Inshallah, rendez-vous avec la grande dame Sarah Cissé pour le journal de 20h di leen ñaanal guddeeb ak télévision Future Media.